soxna Ouma Xayri si su ma ko tuddee tabarkalaaw tudd naa njabar ku jigéen gi ah defe naa ne tabarkalaaw lii neex na di nuyu nag monsieur le ministre waaw vraiment lim def réy na ci man réy ci ñun ndax mën naa wax ne léegi laa ko wax bi cinq heures ne ko man kat dafa am lu ma bëgg a yëkkati tey fii ci Tivaouane mu ne ma lan la ma ne ko benn rek conférence de presse boo xam ni wane suñu cofeel ci président Macky Sall mu ne ma may ñëw ma ne ko ëpp naa def xat na jamono may la ko mu ne ma may ñëw ah moo waral toogaay bii dopp sax ci sot la bokk lii mu def bët bii ma koy xoolee bëtu président Macky Sall laa koy xoolee ndax moo ko fi teewal teewal fi membre gouvernement bi di ko jiitee ci commencé ci premier ministre ba ci ci gën a suuf suufi tabarakallah kon monsieur le ministre jërëjëf yàlla na la yàlla fay yàlla na yàlla gën a yokk garaat yi yaakaar bi président am ci yow yàlla na yàlla jox lépp sa njort ci dara Yonent bi sallallahu alayhi am na ñu nañu mbégte lool nag am nañu mbégte lool ci yow te dinañ la jàppale ba nga xam ne jàppal nañ la ndax sama góor gi Guèye wax na ko léegi ku cëru moo la cër bi may ay kilifa ci gouvernement bi lañ ne ma ba waxtaan nga ak may leen waaw ñu ne ma waaw dee ko bàyyi xel tekk tekkaaram googu lépp a ngi ci moom yàlla na yàlla jàppale ndam li day am incha allah. ndax tabarakallah fii ñu ko sampee fii la ah di nuyu nag sama góor gi di goro réew mi ndax boo nekkee goro président yaay goro réew mi loolu yàlla dogal waaw ndax law lii tamit moom léegi laa ko yégal muy tonton Amadou Diallo di goro président la république Diallo góor gi bég nañ lool gis nañ sa taxawaay su loolu yoo xam nga def nu ñëpp toog ne man maay goro président du ma def dara waaye guddeeg bëccëg yaa ngi doxal li doxal Tiwaawan doxal li doxal réew mi ah am nañ mbégte lool nag si toogaay bii kulóoru ngeen jataay bi ndax bu ñuy wax wax waxi politique jataay jataay politique ba ngeen teew may wax ne kulóoru ngeen jataay bi am nañu mbégte lool tabaarakallaa ah góor gi li nga wax rafet nañ ko waaw yàlla na yàlla dëgëral ànd bi ndax leeral aayul te leeral nga bëgg ñu ko xamul woon xam ko kon tabaarakallaa yàlla na yàlla gën a dëgëral ànd bi ah ñu am fi nag ay gan yoo xam ne nii dañ ciy seppi ñenn rek muy monsieur le ministre mouvement bii nga xam ne mooy mouvement bis du ñàkk ñoom ñooy invité d'honneur bi jataay bii ah ñu am cofeel nag ci ñun njabootu Cheikh Sidi Aziz am cofeel nag Cheikh Abdou Aziz Al Amin ba tax na ñu déplacé wu ñëw ñu waxtaan ak ñoom ñu fas yéene ànd liggéey ci wiiw bii pour leeral ko waaw ah damay wax ne nag nettali ci làmmiñu boppam la dàqee boobu ba léegi ñu ngi waxtaan ak ñoom ku jiite ci Pape Alassane Mbaye ñu bokk benn ndey Pape Alassane mi ngi toog ak ñi ma àndal xam naa ne nettali ci làmmiñ ñu boom la dàqee su paree dina wax nga dégg muy loo xam ne dañ ko rafetlu lool nag mu ci ñoom lool waaye nag dafa am lu ñu bàyyi xel lu bàyyi xel mooy bii yàlla nañ ci yàlla defal ndam ci daraja Yonent bi sallallahu ñun nag jóg nañu ñun waa mouvement de soutien tànn ci waawoon ànd njukkeel ci ngol ñëpp nga ne monsieur le ministre fas yéene jël beneen engagement li ko waral beneen engagement mooy ndigal rek ñu ci lépp ci ndigal la ginnaaw bañ ci ànd ak suñuy kilifa ñu jox ñu ci ndigal ñu fas yéene ne wax ne président la Macky Sall wiiw la may incha allah ma wax ngeen ngeen bàyyi ci xel ngeen bàyyi ci xel donte tàcc yu neex na mais dégg gi am solo wiiw la may bu neexe yàlla suñ fa jógee législatif incha allah 2017 muy wiiw ñu bàyyi ko xel buñ fa jógee 2019 muy wiiw ñu bàyyi ci xel mbir wiiw bi yemul fii waaye nag biir teew ah bu tabaarakallaa am nañ ci yaakaar jël nañ suñuy engagement pire fas yéene laa jàppale ba fa nga bëgg àgg nga weesu ko ci dara Yonent bi sallallahu alayhi ndax nag koo xamul nu ma koy def la dafa tax nañu loo xam ne nii. mbésum euh, mbéjum kanam borom a koy pesal boom tam daf ñoo pes te ci incha allah rabbi dinañ ko fay fagal suñu bopp ba foo mu bëgg a àgg dina fa àgg ndax damay wax ne Cheikh Seydi Mahamadou Mansour dinay wax ne ku am daraja te daraja du joojee jaralul la dara doo am sa daraja joojee dara ñun nag lii mu ñu defal jaral nañu lu ne te ndigal ñett la ndigal day wax ne ndigal ñett la bu njëkk bi ki ko digal amu ci intérêt yow mi ngi ko digal laa am intérêt mooy bii ñuy def tey boobu soo mënee danga koy def soo mënul danga koy def muy bii bi ci des mooy ndugal ndugal ki la ko sant moom moo ci am intérêt mais yow mi ko sant amoo ci intérêt boo mënee defal boo mënul bul def mais ndugaale boobu mooy mooy bi jar mooy affaire bi boobu soo mënee bul def soo mënul bul def ñun nag ñu ngi ci ndigal moo tax suñu mënee dañuy def suñu mënul dañuy def fa tabaarakallaa kon nag ah ngeen bàyyi xel rek ne daal ñun daal dañ ciy dem ba jeex fas nañ cee dem ba jeex te président incha allah rabi dama ko wax keroog da ngay dem kenn du la téye coow li coow li gars yi ci pingu teen bi la amuñu baag waaye ñun moom fii ci Tivaouane deux cent pour cent yi daal laa bëgg quatre-vingt-dix-neuf pour cent sa erreur kon nag tabaarakallaahu ñu jégalu jërëjëf jërëjëf jërëjëf tabaarakallaahu ñu ngi rek tabaarakallaahu di gàttal ndax li duuf ci nag wi li li duuf ci nag bi tabaarakallaahu xajul ci cën li waaye daal xale yëpp xale yi mouvement de soutien tànn yëpp musulmin si jóg nañu jël seen i engagement fas yéene dem feete ko le 21 ci kàttanu yàlla ci wii boo xam ne à 100 pour cent di tëjee rek nuyu suñu maire di suñu xarit di suñu soppe lami di président Mamadou Diagne si mbeng jot naa ko téléphone mu rafetlu lool tabarakallah jotaay bii ah sama jigéen sama xarit soxna seen bu ngay turé tabarakallah moom tamit jot naa ko mu am mbégte lool di rafetlu bis bi di ñaan yàlla ñu àndandoo nekk benn daandandoo bégandoo feetendoo ko ci kàttan yàlla ci dërëjënt bi sallallahu alayhi wasallam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mooy mooy may nuyu bu ñëpp di leen sant di gërëm aadis yi parce que xam nga euh, féete ñàkk bañ féete day xaje wërsëg te aad yi dafa féete xam nga sëriñ yu bari dañuy toog ñu ni du ma politique damay toog du ma jàppale président mais jàppale président moo leen war parce que seeni bëgg-bëgg yi li ngeen am ak seen bëgg-bëgg yi ngeen bëgg ci taalibe yi nguur rek moo leen ci mën a dimbali ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen eggale ko te loolu nguur daf ko war a def te bu ko waree def daf ci war a kontaan ba koy def parce que taalibe yi jote wu ñu nguur taalibe yi yéen lañ jote de parce que taalibe bi fi fëgg yéen a ko jëkk tijji jote wu ñu nguur donc lu ñu leen dimbali rek nguur lu mu leen dimbali rek boppam la jëkk dimbali parce que nguur bu ñu fi tegee c'est pour améliorer condition de vie population bi donc boo gisee ñoo xam ne population boo gisee fenn foo xam mën nañ fa jooy pour xam ni lii mooy métti te nit nag bala ko koo faj xam li koy métti xam li ko jot te ku ku am coono ci yéen day jëkk ñëw donc nga ñuy jàppale donc loolu ñu la gërëm di wax ni que réforme yi réforme yi ñuy def nii du dara dara dara dara loo xam ni ko dañ koy def pour gën a dooleel Macky Sall boppam li ñuy def ci réforme yëpp ci pour gën a dooleel démocratie pour gën a dooleel état de droit pour gën a dooleel suñu institution yi pour ñi nga xam ni que dañ leen a dañ leen extérieur xam nga ñun ñi ñooy voté suñuy député suñu député yi nekk fii euh, euh, fii Tivaouane ñun ñooy voté ñu kii lañ bëgg comme député kii lañ bëgg comme député ñu voté ñoom ñu nekk député mais extérieur ñoom dañ daan voté député yi nekk fii te amuñu député donc il faut ñu may leen ay député donc réforme bi bi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp et puis ñu ni ñu bi fi nekk maa ngi koy fàttali parce que ci la ñu doon jàpp di def amalgame di wax lu dul dëgg di influencer nit ñi laïcité bi fi nekkoon ci ab Senghor moo fi nekk ba léegi mooy laïcité bi fi nekk ci Abdou Diouf mooy laïcité bi fi nekk ci Ablaye Wade mooy laïcité bi ñu fi fekk noonu nañ ko bàyyi changé wuñ ci dara bokkul ci réforme yi buñ ne les nouveaux droit dañ ni les nouveaux droits def deux points cité ko nommément donc ci amu ci beneen droit bu ñu mën a créer borom ñaari tur bu ci nekk dañ di nouveau droit daal di le droit à un environnement mooy que yow mii sa environnement sa environnement bu kenn ñëwee tooñ la ñëw sa buntu kër defar fa fos mën nga ko porte plainte léegi ñu jàpp ko tout suite mu fay la defar ko environnement bu sain buñ defee loo xam ni que tuur mbalit sa buntu kër wala tuur mbalit foo xam ni day impacté nit ñi loolu yëpp c'est un environnement sain loolu yëpp léegi am nga ci droit boo ko poolee porté plainte ñu def ko ay daan beneen bi lan lañu wax mooy affaire titre foncier parce que am amu suuf dafa mus a am problème fii Sénégal boo jëndee suuf tant que tabaxoo ko bañ defal lay këyit da ngay nekk ci jaaxle parce que mën ngaa jënd ba commencé keneen ni la maa ko moom kii ni la maa ko moom xuloo yu bëri ci tëb ñu ne léegi affaire yu titre foncier dañu ciy def ay droit yu leer yoo xam ni que boo amatee sa suuf comme ni ko comme ni amee ñi amee ay titre foncier ñi am kii sa suuf boo ci defee mën nga ko dem banque ñu lebal la ci xaalis muy lu wóor loo xam ne yaa ko moom loolu yëpp ñu ñu wóoral ko leneen li ñu wax leneen li ñu wax ci ci ci ci ci ci ci ci les droits là les droits donc dañ def deux points wax environnement sain wax affaire titre foncier yi wax affaire suñu suñu suuf si suñu suuf si léegi suuf si bu amee dara bu amee phosphate wala ñu gis ci pétrole wala ñu gis ci dara Sénégal ñoo ko moom léegi entièrement luñ cay def ña fa dëkk ñu dëkk ca suuf sa wala ñu moomoon ko dañ leen di jox indemnité yu baax yu ko jar pour ñu nu ko ko exploiter <coughs> donc vraiment. <coughs> loolu yëpp nañ ko préciser loolu yëpp <coughs> pour dalal yokk suñuy droit la donc vraiment amul dara dara dara lu bees loo xam di <coughs> génti nañu maa ngi leen di sant di gërëm alhamdulilah